يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيم liggéeyam ci làmb kenn dootu ko nattable kenn dootul taxaw naan lii ak lii ak lii la def ci làmb liggéey na ci làmb ba tey ji am ay xale yoo xamante ne nii kenn xamu leen woon tey ji Gaston liggéey na lu tax tey ñu xam xaal ñu xàmme xale yooyu Gaston liggéey na tey ji lu tax ñu ñooñu tey ji mën a am luñ doon ci réew mi ñooñu am ay kër am ay oto bu ñu génnee nit ñi mën leen a bëgg bu ñu génnee nit ñi xàmmee leen di yooxu wala di topp si seen ginnaaw loolu Père Gaston moo ko def créer ay créer ay personnes yoo xamante ne ay personnes de valeur lañu parce que tey parcelle parcelle mi ngi tiitaloo Modou Lo Guédiawaye ngi tiitaloo Balla Gaye feneen ak feneen mi ngi tiitaloo keneen tey ñooñu Père Gaston moo tax ñu génn ndax moom moo dafa taxawal li nga xamante ne moo leen may tey ñu génn dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal nit bu baax la woon nit bu dëgg la woon nit bu dëggu nit boo xamante ne nii euh, yëfam jaral na ko baxanam défendre intérêt am jaral na ko baxanam te loolu nag dafay ay valeurs yoo xamante ne day tax ñu xam ne kii am na lu mu gëm am na lu mu bëgg léeg ñu ak moom sax daan na metti ci liggéey bi mais parce que juste intérêt rek la doon défendre comprendre nga du xiroo du ŋaayoo du xëccoo du dara intérêt la doon défendre loolu nag day wane ne dafa am ay valeur dafa am lu mu gëm parce que nit ki bu gëmul dara bu bëggul dara du mën a défendre boppam du mën a taxaw ne lii naan lii nii la war a demee wala lii nii la lii moo war am kon dañ koy ñaal di ñaanal ñimi fu bàyyi makan ak ay raxam di ko jaale makan di ko jaale xaali meng parce que xaali meng man yàlla dogal na ñu am chance bu bokkoon école collège africain sport études CAS ñoo nekkandoo ñoo fubalandoo laa mun wax xaali meng kon suñu relation du ci làmb la commencé ma koy jaale bu baax a baax di ko di ko di ñaanal yàlla may ko xolu muñ ak ay raxam mais aussi di jaale suñu yaay yi suñu yaay Ndeye Mariam ak suñu beneen yaay bi ñoom ñaan ñëpp ñu ngi leen di jaale parce que Père Gasson nit la woon bu baax Père Gasson nit la woon boo xamante ne nii mën na mën naan la suñuy tànn nit nit nit nit nit ku dëggu dëggu quoi parce que nit ku mën nitam parce que bu fekkente ne yow la amal contrat keneen bu ñëwee du wax ak kooku dafa mën nitam dafa mën nitam mën défendre boppam kon yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel parce que ah ci biir tawat bi ko déggee ba ngay dem naa fa dem naa seeti ko gisante nañ dem naa ba këram seeti ko ma toog mu toog mu jàpp sama loxo tur ay xewal yu bari ma jooy fa jooy yu métti mu jooy fa jooy yu métti jooyloo ma bis boobu bi may génn makan maag makan a génn mais laajal makan xam na mënu ma sax wax bi ma génnee laa woo sam papa naka dema koo ci pergas mu ne ma déedéet ma ne ko dem fa léegi woo ko léegi nga dem fa xam nga tey jii bu motaar yi génnee ay motard bu ñu ñëwee indi si ko nga xam ni c'est un c'est quelqu'un dans ce pays on a fait grand homme mi ngi nii di yegsi nañ leen dem ànd ak moom jébal ko borom moom ci barke yonent naam euh, comme ni nga ko waxee euh, mi ngi noonu ak nga xamante ni moom mooy euh, Modou Mer noonu la wax ndeysaan koor bàyyi noonu di yegsi nga xamante moom mooy Père Gaston comme ni ngeen ko waxee rek Mamboy Diaw moo nekk noonu corbillard bi moo nekk noonu ndeysaan waaw waaw ndeysaan corbillard bàyyi noonu ndeysaan père Gaston oh, oh, ndeysaan makaan mi ngi noonu ci biir waaw ci ngi noonu ki nga xamante ne mooy Père di a yegg fi xamante ne moom mooy euh, cimetière bu nga xamante ni moom mooy bu Yoff ndeysaan lii mooy àdduna am na ko yàlla yërëm te euh, xaare ko àddina barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu ko waxee mi ngi noonu Père comme ni ñu ko waxee ndeysaan champion yëpp a ngi fi tay mu nekk doog a euh, fi nga xamante ni moom mooy ci kii bi li noonu dañ ko bëgg a euh, dugal fi nga xamante ne moom mooy ci kii bi euh, sang ko ndeysaan li nga xamante moom mooy jébal suñu borom Père Gaston mi ngi noonu yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana def na lu nekk ci wàllu làmb naam seede yi nga xamante ni nii def na ko. mi noonu comme ni nga koy waxee ndeysaan mi ngi noonu comme ni ñu wax euh, nee na ñu li nga xamante ni moom mooy téléphone bi ndax dañuy génne koor bi fas yéene ko dugal ci euh, jàkka ji sagg ko aussi jullee ko ndeysaan kulli nafsin saa yi xatul noot kulli nafsin saa yi xatul noot père euh, Gaston nekk nga xamante ni quelqu'un la booy xool tey ñu ko ni ko gungee motaar yi nga xam ni ndeysaan euh, mi ngi noonu rek euh, per Gaston Korobia baa ngi noonu ñu koy waaj a jullee jébal ko nga xam ne moom mooy suñu borom waaw ndeysaan eh. maa ngi nekk Sénégal yàlla defoon nag muy sama gut pa ba ngay gis làmb ji bu gars yi musaanam xëqalal su ma ñëwee na bàyyi père baal mu set day bàyyi mu set di nit koo xam ne ku maanaam ku gëmoon boppam la tey fi ñoom Alaaji Basiru Jaañ Mareen Jóob fi ñoom góor gi amat jéen tegoon seen tànk bi mu ñëwee Gaston a révolutionné la lutte tey ñi fi fiy tudd yëpp ci ay champion ces dernières vingt vingt années yi passées yëpp ay produits Gaston Xaali Mbengue lañu te tey ku fekk ndaw xale jëlee ko. ci dara. ba def ko dara. kooku yàlla rek moo am sax fay. tey ñaata champion tey ñoo fi samp ay kër. ñaata champion tey ñoo fi dawal ay oto. ñaata champion tey ñoo yor seen njaboot grâce. ci wërsëgu Père Gaston la jamono bi ñu interdit site internet ci làmb ji dama xëy rek jumet këram dama ñëw mu ne yow ku la may audience ma ne ko wutuma audience mu ne ma bu la xamoon waxal ak Makan ma ne ko yow laay waxal mu woo Makan ñu toog waxtaan mais souvent mu ngi daan jàppaloo Makan Makan mooy seen morom man jeexal naa Makan a ngi noonu ci làmb ji ñu waxtaan ba bii ma koy mujjee bi ñuy mujjee waxtaan euh, signature de contrat wu Balla Gaye de Boy Niang Boy bi Eh, théâtre national dañoo si ma ñëw rek mu ne ma tey bu ngeen bu siti fayul duñu duñ fi dugg ma ne ko dañuy dugg par force maa ngi ko mujjee gis ngeen te makkan ñëw fekk ko mu feebar wax dëgg yàlla bi ma ko joxee loxo li ma njëkk wax mooy buur jël namoon naa mooy suma paa wax dëgg yàlla ñoo may relation yu des relations très sincères eh, donc nit ku dëgg woon la mooy du tricher sur ses pensées Gaston foofu gën a def Sénégal yu bëri mooy moom li mu gëm rek laa lay wax te plaise ou li mu gëm la lay wax donc makkaan la ñuy ñaanal mu gën a góorgóorlu ndax wolof dañ ne ku ñu sa baay jàmbaar la boo dul jàmbaar it war ngaa xonqali bët donc te ku ñu Gaston moom mooy sa baay dëgg la man maa ko tuddee le combattant ndax l' enfant et le fils góor gi sóob na ko ci boppam ba sax laata feer bi di ko daaneel moom makkaan mu ngi doon doxal kon donc li ci des mooy yàlla may leen ak jiboole seen biir ñoom ak njabootam ndax loolu mooy doom doon fierté am au delà de fa mu nekk mooy ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi ku ci nekk jàppee sa morom ni sa bopp ni monde laa ma def nag tey noonu la ñu war a def champion yëpp a ngi fi kilifa yëpp a ngi fi wax dëgg yàlla ndax Gaston ku ci nekk la amaloon alaaka bu rafet boo xamante ne ku ci nekk ñun war na mën a wax ci jërëjëf jërëjëf jërëjëf kookoy buur géwél kookoy euh, buur géwél naam gis nga li nga xamante ni moom mooy kër euh, yaay bi euh, mu ngi noonu nag li nga xamante ni ñu ngi waaj a jullee ah suñu euh, papa ndeysaan euh, ci euh, ki nga xamante moom mooy père Gaston sama yaram dafa daw ndeysaan parce que tey niñ ko niñ ko taxawoo tey li nga xamante moom na ko àdduna bi taxawoo yëpp rek ak ñëw ndeysaan ñi nga xamante ni ñoom ñooy am am ni jàmm ñi ñëpp rek tey ñëw ne gunge ki nga xamante ni moom mooy père ñaaxarañ lo moom moo nekk noonu di doog a yegg si ndeysaan قابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيم